Khalifa Ababacar Sall bi nga xam ni euh, ci RFI en tout cas euh, moom euh, defal nañ ko benn entretien boo xamante ni si xam ngeen ni Khalifa Ababacar Sall coalition Yewwi Askan bi moom sax d'ailleurs moo nekkoon président conférence des leaders gis nañu yenn ci ay vidéo yoo xam ni en tout cas sant na ci bu baax a baax ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko ci loo xamante ni si xëy na defal na ko wala lebal ko ko ku ne xam na ni kii di Khalifa Ababacar ak ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko amoon nañu quand yenn jegeyantoo goo xamante ni si nii euh, bon ñu bare bare xëy na peut-être mënuñu woon a xalaat ni euh, bis dana ñëw en tout cas politique gu Sénégal moom du ëmb day xëy wasin ba moom Khalifa Ababacar Sall jaar ci turu Ousmane Sonko sax daf koy jafe wala da bëggul en fait parce que euh, boo xoolee interview man vraiment j'ai été déçu ci ki nga xam ni moom mooy Khalifa Ababacar Sall parce que. pour man wàññiwu ko dara en fait mu jaar ci turu ki nga xam ni moom mooy moom mooy euh, Ousmane Sonko bien vrai que mi ngi doon militer à ce que des élections inclusive et ma yoo xamante ni si ni ñëpp euh, dañuy dañuy dañuy dañuy bokk mais euh, li nga xam ni rek moom lañ ci retenir mooy euh, turu Ousmane Sonko bi daal la jël seppi ko ba mu set mu tege ko nel te bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw ki nga xam ni moom mooy Khalifa Ababacar Sall en tout ci ay élection législative yoo xam ni génn nañu ci élection locale yoo xam ni itam génn nañu ci ñu gis ni la coalition Yewwi Askan bi ñoom Euh, dañu booloo woon nekk benn dugg ci réew mi fépp battre li nga xam ne moom la campagne boo xoolee sax ci ay campagne yu bare bari moom Khalifa Ababacar Sall dafa nekk ci oto bi mais tout le temps Ousmane Sonko la ñu doon gis parce que ñoom dañuy jiital Ousmane Sonko nekk ci ginnaaw parce que xëy na peut-être jàpp nañu ni moom mooy vedette bi moom moo yore li nga xam ni moom mooy pënc te moom moo doon dem itam di wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal mu doonoon en tout cas coalition boo xam ni moom Khalifa Ababacar Sall dafa yàgg a militer à chaque fois li mu daan yàgg di wax mooy que ni euh, coalition Yewwi Askan bi du mas a tas coalition Yewwi Askan bi dafay continuer euh, ci aventure bi nga xam ni moom la moom la am doole gi nga xam ni am na ko force bi nga xam ni am nañu ko mooy booloo nekk benn dañu ci euh, continuer en tout cas ci lancé boobu noonu mais fi problème yi commencé am mooy Khalifa Ababacar Sall ñëpp seetaan nañu bi ko Pape Alé Niang invité laajte ko en tout cas ci li nga xamante ni si nii moom mooy moom mooy sa candidature Euh, naka ngay war a def ba bokk ak euh, foo war a jaar mu ni ko mën naa bokk rek en tout cas nu ma bokkee baax na loole commencé indi polémique yu bare bare bare ñu bare xëy na commencé am doute ci ki nga xam ne moom mooy moom mooy Barthé moom mooy euh, Khalifa Ababacar Sall Barthélémy Dias fare ci moom gis ngeen sortie bi nga xam ni defoon na ko en tout cas mu doon sortie boo xamante ni si nii daf ci attaqué bu baax a baax benn leader notamment ki nga xam ni moom mooy moom mooy Ousmane Sonko bien vrai que xëy na euh, tuddul turam comme ni ko Khalifa Ababacar Sall defee euh, ci fële ca fële ca RFI tuddul turam jaarul ci li nga xam ni moom mooy moom mooy turam mu doon kon ay ñagas-ñagas yoo xam ni en tout cas commencé nañu ko nemmeeku entre ci leader yooyu nga xamante ni si nii bu ñu arrêté quelques mois ci ginnaaw dañu meloon ni mburoog soow dañu meloon ni mburoog soow maam caaci rek soow boo xam ni yëngal tuur la wala boole naan mais ñu dem ba ci yàgg rek eh, kenn ku ne commencé indi tànk bu ñu bari nag xëy na jàpp ni ay intérêt crypto personnel la ci commencé dugg kenn ku ne yaa ngi milité en tout cas pour ça mais man jàngat bi ma ci am rek parce que tey boo xoolee Khalifa Ababacar Sall moom euh, sa candidature parce que euh, ñi ngi jëm euh, ci delloo si leen moo ki nga xam ni moom mooy Karim Wade ak moom moom mi lay di Khalifa Ababacar Sall nekkoon fii maire Dakar. bi ñu demee bam leer leen ni pour le moment parce xëy nañu ci bare bari ñoom njort nañu ni euh, wala yaakaaroon nañu ne ko Ousmane Sonko élection yi ñuy dëgmal lu ci bokk te instant bii nii ñuy wax ak yéen bu fekkoon ne élection yi suba la te dindiwuñ li ñu teg ci kawam Ousmane Sonko effectivement du bokk parce que teg nañu ci kawam ay daan yoo xam ne en tout cas pour le moment mën na ko tere mën na ko xañ euh, mu nekk euh, candidat loolu après danañu ci ñëw euh, ci kanam tuuti parce que moom Ousmane Sonko dégg ngeen ko li mu wax en tout cas daan yi ñu ko daan moom jàpp na ni dara du ci dégg du dëgg du yoon respecté wuñ ay axam ak yelleefam daan la yoo xamante ni si nii maanaam c'est politique dañu laxas euh, politique gu baree baree baree baree bari mais ci kaw loolu noonu parce que Barthélemy Diaz ñun dañu ko njëkk a suivre mu ni <coughs> euh, Sénégal wala ci taarix même prophète yi fi jot a jaar yëpp maanaam injustice dafa yàggam c'est-à-dire comme si que euh, puisque Ousmane Sonko teg nañ ko daan même bu fekkee ni injustice la maanaam bu ñu ko déggee ci ni mu waxee maanaam dafa war a gëm yàlla en fait dafa war a gëm yàlla mu nangu li nga xamante ni fii moom mooy moom mooy dogal euh, ci gàttal kon maanaam na dem toogi rek xëy na peut-être mu xaar yeneen élection ainsi de suite wala yu demee yu demee ni ni ki mel euh, maanaam man gis-gis boobu dégg-dégg boobu perception boobu en tout cas laa ci amee parce que bu demee di militer naan que injustice yàgg na ci réew mi que ça soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wala nga nekk wala Yeesu Krista ak yeneen ak yeneen euh, injustice yàgg na am ci àdduna bi kon am na ñoo xam ni bu ñu leen injustice dalee dañu war a gëm yàlla c'est-à-dire dañu war a croiser les bras xëy ne kon la maanaam ñu ci gàttal rek la ci la la bëgg a wax dem toog bañ a def maanaam bañ a bañ xeexi en fait loolu euh, moom mooy dégg-dégg bi ci gàttal léegi est-ce que tey moom Barthélémy Dias parce que boo xoolee moom ay principe am ay combat yu bari boo xoolee bi ci gën a bi ci gën bi ci gën a bees mooy euh, mairie bu Dakar. bi ñu euh, bëggee saboter li nga xamante ni si nii moom mooy en fait seen seen seen liste moom Barthélemy Dias ku ne gis na ni taxaw na moom maire bu dakaar actuel maire bu dakaar mu ni dafay woo li nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi à ce ñu mobiliser wu il faut que nit yi. ñuy euh, ñuy ñuy quand même euh, euh, bañ di gaaw di fàtte di indiwaat maanaam les faits yi parce que nit ki man en fait kenn ku ci nekk ci ni nga doxalee rek ak ni nga ni nga ni nga ni nga doxalee say mbir en tout cas man ci laa lay ci laay xool def ci sama jàng def ci sama analyse mais itam en fait ci laa lay ci laa lay jugé Barthélémy Dias boobu noonu doon woo jeunes yi à que ñu mobiliser wu pour fas yéene jàmmaarloo wala jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy président Macky Sall Barthélémy Dias boobu noonu parce que lu tax xamul tax mu doon woo ndaw ñi parce que nee na dañuy teg injustice ci kawam. il faut ngeen déglu baax a baax boobu dañu tegoon injustice ci kaw mu ni la jeunesse dakaroise na ngeen mobiliser wu ngeen waaj parce que lii nii duñu ko bàyyi mu jàll on l'acceptera pas ci booba moom maanaam nekkul ni dafay xëccoo réew mi de Sénégal mais maire bu Dakar tout court listam euh, ak ak élection législative yi du moyen élection législative yi ñu waroon a am seen liste waroon a am sept députés ñu nar koo salfaañeeg yu ni mel mu ni dafay woo jeunesse bi appel à la résistance parce que dañu teg injustice ci kam tey baat lu bu jaay boobu su ma ko déggee après ñu demaat tuuti ay weer ci kanam mu ne réew mi wala àdduna bi ci taarix yàgg nañu fi gis injustice kon ak ku mënti doon bu injustice dalee ci kaw maanaam ci gàttal da war a gëm yàlla en fait Barthélemy Dias boobu noonu tey bu démb ba ak bu tey bi ban Barthélemy Dias en fait la ñu ci la ñu ci war a gëm Barthélemy Dias bi nga xam ne nee na bu ko injustice dalee dafa war a résister mais bu injustice dalee ci kaw keneen moom na gëm yàlla en fait na toog maanaam lii la quoi moom su fekkoon tey tey li mu doon wax ni dëgg la ci moom mais. Euh, ba muy njortee ni injustice dafa nar a dal ci kawam ba mu taxaw résister ba tey mu am li mu bëgg moom ba mën a jàll nekk biir assemblée nationale mën a tamit jàll nekk maire de Dakar tey jii nii c'est parce que mais dafa taxawoon bañ mais pour pourquoi tey moom Barthélémy Diaz mu ne en tout cas bien vrai que tuddul turu kenn mu ne ku mu manti doon bu la injuste dalee ci sa kaw euh, en fait da nga war a gëm yàlla dem na ci sax baag ci ni ndaw ñi bu leen nangu en fait xam nga suñu politiciens yi nag yéen <laughs> da ngay da ngay da ngay reebotas doo ci xam ban politicien nga ci war a gëm en fait mais c'est c'est la réalité ban politicien nga ci war a gëm parce que <laughs> moom moom moom Barthélémy Dias bi naan ndaw ñi bu leen nangu. Euh, ku dugal seen bopp ci yenn bu leen nangu ku leen manifeste euh, ku ku ku ku leen woo parce que ngeen di manifester ainsi de suite loolu laa ko mën a tuddee mais Barthélémy Dias boobu noonu barki Demba Ndiaye moom moo moom bi bi bi bi yat bi dalee ci kaw mais ci ndaw ñooñu la daw wutali moom moo doon woo ndaw ñooñu parce que ñu mobiliser wu <laughs> ce que yéen a ngi en fait euh, yéen a ngi gis maanaam comportement wu yenn policiers gis nga Ousmane Sonko nag quoi qu'on puisse dire man xam naa ni. Euh, yàlla yàlla yàlla yàlla may na ko xam nga lu tax euh, parce que tey gis nga ku ci mel ne Barthélemy Diaz ak ki nga xam ni mooy Khalifa Sall pour dire vrai en tout cas man perception boobu laa ci am gis-gis boobu laa ci am tey bi ñu doon nekk ci coalition Yewwi Askan bi ñuy ànd mu doon ànd boo xam ni en tout cas seeni militant dañu ko rafetlu woon sénégalais yi lu ci ëpp ëpp ëpp dañu ko rafetlu woon tey tey ku nga xam ne ni xalifa sàll ak lu ñu mënti wax politiquement il était maanaam dafa deewoon ci politique. ànd ak Ousmane Sonko maanaam plus particulièrement duggaatam ci biir coalition Yewwi Askan bi parce que boo xoolee xam nga man la fois passée waxoon naa leen fi ma ni Ousmane Sonko ci ay calcul politique am daf ci def njuumte lu rëy xam nga la moo tax parce que man dama yàgg a gëm ni système bi fi nekk ñi mu formé nii ci politique amuñu mbokk amuñu xarit la preuve tey mi ngi nii moo tax ma ni mairie de Dakar bi nga xam ni c'est un point maanaam point stratégique ci politique surtout fii Sénégal moom Ousmane Sonko ba mu demee ba mu leer ko ni mënu koo gañee man li ma gëmoon mooy soit mu jiital Abbas Fall wala mu indi Guy Marius Sagna teg ko fi man loolu laa gëm te man dama gëm ni tey Barthélemy Diaz moom su gañee mairie bu Dakar c'est grâce à Sonko man gëm naa ne Ousmane Sonko tey doole gi mu am fii nii ndakaar bu dikkoon wala ku mënti teg fii nii élex euh, maire bu Dakar tey jii gëmoon naa ne ci loxoom lay nekk mais bon euh, bref loolu jàll na euh, ñi ngi ci yeneen ñi ngi ci yeneen i euh, phase moo tax ma dem ni xëy na ñoom en tout cas dañu profito ñoom fekkee nañu profito euh, ci euh, doole Ousmane Sonko pour dire vrai ba suqalikuwaat parce que tey nag lu ñu mënti wax dañuy yore boo gisee tey fit gi ñu am ni mais mairie bu Dakar ku koy yore kay mu nekk sa loxo mais kooku <laughs> yaa yeey maanaam bon nu ma ko mën a tuddee mais bu la neexee bajant bu la neexee bajangu en fait parce que. da nga yore yore woo como yore woo lu ndaw doole bu mag a mag a mag a mag a mag nga yore tey Barthélemy Diaz moom mooy maire de Dakar ah oui Ousmane Sonko il est maire de Ziguinchor mu lui il est maire de Dakar toog fii jàkkaarloog euh, président de la République Macky Sall te moom bi muy battre campagne ku ne xam ne ni Ousmane Sonko euh, mais joué na ci en fait en fait rôle bu rôle bu ama am solo tey léegi nag yooyu yëpp maanaam jaar fi ñoom. ñu commencé woon am sympathie ci Sénégal yi en tout cas sénégalais yu baree baree baree bari parce que boo xoolee man li ma gëm te gis ko mooy sénégalais yi boo jëlee cent pour cent quatre vingt cinq pour cent yëpp anti système la ñu ñoom instant bi système bi fi nekk depuis 1960 ba léegi ñoom gëmatuñ ko dañu bëgg mu jógee fi léegi ku ne xam ne Barthélémy Dias xalifa Sall ak ñeneen mën naa lim ñeneen mais instant bi ci ñoom la ñuy taxawandi ñoom ci système système yi moom moo leen formé d'ailleurs sax dañuy taxaw di bàkkoo que ni ñoom il sont ne socialistes maanaam depuis ñu dugg ci politique ba léegi ay socialiste lañ ci parti socialiste lañ nekk ci lañ jànge politique ci la ñu màggee ba toll ni ñuy toll ñooñu tey sénégale yi am nañu benn bët bu ñu leen doon xoolee ba ñu commencé am maanaam dugal seen bopp ni système bi fi nekk dafa war a jóge mais tey seen àndoon ak Ousmane Sonko taxoon na ñu amoon benn sympathie ak beneen bët bu leen sénégalais yi commencé waatoon di leen xoolee li moom mooy dëgg léegi. preuve bi gis ngeen xalifa Ababacar Sall mais euh, wax dëgg yàlla ku ne xam na ni nag mais c'est un gars très cool nit ku kilifa gu yaru la en fait ci lim ci lim ñu wan ci li mu wane euh, ci politique de toute façon man à part euh, parce que samay at bariwul day ci bari war dañuy gëstu rek à part jafe-jafe bi ñu ko xamal ci wàllu justice bi mu te bi président Macky Sall ñëwee la ñu xañ ko ci ay droits civiques mais à part yëngu-yëngu yu ci bari bari doo ci dégg xalifa Ababacar Sall tey bu ñu demee ba Khalifa moomu noonu tey. nga xam ni fu daan taxaw ci Sénégal fu muy waxi nit ñi dañu naan tekki déglu ko fu mu dem nit ñi génn tàcc ko tey mu génn fu ci baree bari sax presque euh, ñëweetu fa dem parce que lan ragal na bu demee ñu yuuxoo ko gis ngeen li xewoon fële ci place de l'obélisque ay nit yuuxu taxaw di ko yuuxu même Ousmane sunko bi nga xam ni ñoom nee nañ moom la ñu yaakaar sax taxaw na ñaan leen li mu leen ñaan mayu leen que c'est parce que mais les choses les données ont changé xam nga bu njëkkoon maanaam politiciens yi ñoom ñoo daan en fait guider bi ñoom ñoo daan guider ndaw ñi fu ñu leen bëgg a jëmloo ñu jëm fi mais cet fois ci ba le ministre dafa mel ni que c'est le contraire tey politicien bu fi jëm fu neexul ndaw ñi maanaam li li ñuy wax maanaam mafia bi ku ci bokkul xiir gi daleen maanaam yet gi dalay dal en fait tey maanaam jeunesse bi te les la démocratie nag c'est la majorité te ku ne xam na ni Sénégal bu ne pays boo xam ne 65 pour cent yi yëpp ay ndaw lañu mais kon kay foofu ndaw ñi ñoo ñoom ñoo fa ëpp en fait tey ñooñu bu fekkente ni dañu jël seen destin en mais ñu ne. li nga xam ne moo fi nekkoon depuis 1960 ba léegi ñun ñu nekk ay benn wii wii amuñu lenn lu ñuy dogal amuñu lenn loo xamante ni si ni en tout cas ñun moom nan ñu woo rek nu ñu lii la ñu ni lii la tey ñoom bu ñu demee bu ñoom sax seeni ay leader dañuy bëgg ni nañu def lii ñu ni ko lii duñu ko def lii la ñuy def c'est parce que ñoom en tout cas ku ci conscient war nga xamante ni si ni en tout cas les données ont changé maanaam mbir yi dañu dañu dañu changé bu a moo tax ma ni ma jàpp tey Khalifa Ababacar Sall ak ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias parce que man dama gëm ni parce que ñu bari ñi ngi wax nii bu ñu amee tey lu ñu am c'est grâce à Ousmane Sonko loolu bala ñu ko mënoon a gën a confirmer ñu demaat yeneen élection yoo xam ni en tout cas ñoom kenn ku ci nekk da ngay jaaraat fa nga jaaraatoon ñu xool ndax sénégalais yi ñoom la ñu amoon danañu ko amaat waaw wala déet. loolu en tout cas dana doon ci firnde ci preuve yi nga xamante ne si ni nit ñi euh, des na ci des na ci mën a mën a mën a jàpp bu baax a baax mais lu ci manti am fi mu ne nii moom muy Barthélémy Dias muy xalifa Sall dafa mel ni que ñoom sax xam nañu ko en fait bu fekkente ni xëy na naxuñu seen bopp estime bi nga xam ni xëy na amoon nañu ko ci sénégalais yu baree baree baree bari peut yu ci lu ci baree bari wàññeeku na li ko waral mooy lan euh, Sénégal dañu xëy ni dañu jógee ci yoon bi bëgg a dem ci yoon bi ñoom ñu bëgg leen xëccaat ci yoon ba nale xëy na ñoom euh, dañ leen fa bàyyi dem continuer ñoom seen yoon instant bi nii loolu mooy problème parce que boo xoolee mag ñu ci bare bari ci politique boo leen déggee ñuy wax dafa mel ni que ñoom ndaw ñi dañu leen a devancer en tout cas ci lu baree bare maanaam dañu leen a dañu leen a raw euh, ci lu baree bare ci tolluwaay fi nga xamante ni xam fi xamante ni ñoom agsi nañu ko wala am nañu ko ci gis-gisu politique fi ñu toll jëni boo xoolee tey euh, ku ci mel ne xalifa Ababacar Sall euh, ki nga xam ni mooy Barthélémy Dias Idrissa Seck parce que tey ñett ñooñ boo xoolee Idi moom mi nga xam ni moom mooy tey Ndaamal Kajoor tey moom moom Idriss Seck boo xoolee ñun euh, en suñu école bi dama toog euh, sama papa mu mu mu mu wax mu lu am solo mu ni ma euh, Baara ma ni ko Mbàkke mun ma yéen seen école seen nasaraan si ngeen di jàng seen école bi mu ni ma mun ma ñetti ñii la lay formel munu ma ñetti nit la lay formel maanaam la lay defar munu ma ma ni ko ñetti ñan munu ma day defar nit koo xamante ni si nii day defar. li muy njëkk defar mooy ñi nga xam ne ñooy nekk les présidents de la république mooy ñi nga xam ni jàng nañu euh, ba am bac dem université am fa ay euh, lijaase yu kawe kawe d'ailleurs sax fii ci Sénégal tey boo bëggee laaj réew mi te amoo bac plus nangam lu ci ëpp bari dañu lay xeeb wala sa jàng sorewul maanaam lu ci bare bari dañu lay xeeb danaan xam-xamam sorewul mu ne ma beneen bi ci des mu ñu la bu ñu la bu ñu la génnelee président yi pare dañu lay génneel maanaam seeni ministre i DG maanaam buñ paree buñ génnee président yi leen di génneel li ñu war mais bu ñu génnee ñooñ ba pare dañuy génneewaat ñeneen ñi nga xamante ni si nii nag ñoom la ñuy yabal ci ci ci Sénégalais yi ci plateau yi ñu war a wax ñu war a yàq xelu Sénégalais yi mu ni ma ñett ñooy ci ñett yii lañ leen di former ma ne ko ñett yan mu ni ma dañ leen njëkk a former ci naka ngay def ba kenn du la nax bu ñu la forme ci naka ngay def ba kenn du la nax ba pare ñu former la ci naka ngay def bay man di nax nit ñi mun ma bu ñu la formé ci naka ngay def ba mën di nax nit ñi ba pare léegi nag ñu formé la euh, ci boo naxee nit ñi naka ngay def ba kenn du ko xam munu ma nii la école seen école bi seen nasaraan si nii lay formé euh, en tout cas nit yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di jiite Sénégal mais moo xool ma ni mais pourtant et pourtant c'est vrai parce que tey boo xoolee président bi mais moom mook ay ministre am mais kiif kiif ñoom ñooy yem en tout cas euh, bëgg-bëgg ñoom ñooy yem li ñuy bëgg mais buñ ca yemee da nga gis ay nit yoo xam ni mais a chaque fois bu buñ seen ñoom ñooy dem ci plateau yi ñoom ñooy wax ak sénégalais ñii ñoom ñooy ñeneen dañuy leeral askan bi lu ci ëpp bari dañuy lëndamal askan bi ñoom ñooy dem en tout cas di wax naan askan bi nii la ak nii la alors que lu ci ëpp bari euh, les réalités duñu ko wax duñu ko wax askan bi mais effectivement euh, li mu ñett yi ci ñett yi leen di former mooy ñoom nañuy fexe di naxaate kenn du leen nex te ku ñu nax na nga fexe ba doo ko xam kon mu doon en tout cas loo xamante ne si ni boo xoolee mën nga ni école euh, française bu Sénégal depuis 1960 ba léegi boo xoolee presque genre type doom yi nii la nekk di fournir en tout cas ci Sénégal parce que boo xoolee euh, fi ñu toll nii jamono si saa si tembe ku ne xam ne nekk njàng mi mais léegi commencé na yaatu bu baax a baax a baax a baax léegi lu mu bon bon bon bon bon bon boo waxee français boo duggee waxuma la ci euh, euh, ville wala dara mais ci village rek ci léegi boo demee lu mu bon bon bon bon bon la ëpp ca ndaw ña ñu xam danañu dégg mais li euh, li ñuy wax ci làkkum nasaraan wuuteeg bu ñu arrêté ay at ci ginnaaw nga xam ni danga nga dem village wu lëm kenn moo ci daan jàng kenn. composé téléphone portable sax boo ko daan def man de yónni nañu ba tàyyi eh, ci suñu ndaysaan mu nuyu ko au passage mu sekk eh, mu mu mu mu mu mu composé ni composé numéro téléphone rek faaw nga yónnee ji eh, ba ci kenn <laughs> sa ko mu composé le ko parce que booba nit yi jànguñu ñu ci bare bari jànguñu mais léegi en fait ñu ci bare bari dañu dañu jàng lii tey moom moo indi différence bu baree baree baree baree bari en tout cas boo arrière ci ginnaaw Euh, ci li nga xam ni moo xewoon à l'époque ak fi ñu tollu jamono si ni saa si tembe parce que nit ñi ñëpp ñoo jàng ñoom li ñu jàng moom la xale yi nii tey taxaw ni dañu bëgg a jël seen destin en main ñoom li ñu jàng mais loolu la ñu jàng ba sax xëy na peut xam loo xam ne xamuñu ko moo waral xëy na peut-être euh, yenn euh, décalage yi am en en tout cas entre ñoom ci seen ci seen ci seen diggante moo tax ma gëm ne ñoom dañu war a ressaisir ñu en tout cas bu njëkkoon xale yi ñoo leen daan déglu mais nag ñoom tey dañu war a jël benn euh, pause benn temps boo xamante ni dañuy déglu xale yi xam nii nii lan lañ bëgg ak fan lañ bëgg oriente seen réew du ma lépp mën naa baax mais lu ci ëpp mën naa baax li nga xam ni baaxul ñu fexee xool naka lañ koy joyante jubantee ko su ko defee pour man jàmm ni ñooy jàmm mën a dellu su ko defee entente mën a am ci seen diggante ñoom ñaar lu ko may boo moytuwul gis nga li ma gis nii su may su dakkul ak ñi nga xam ni nekkoon nañu fi bëgg a forcer benn euh, maanaam voie boo xam ne ñoom moom la ñu jëloon te alors que gone yi ñoom dañu ni ñi ñëw nii dañu bëgg indi benn système ñu ci ay politiciens yu bare war nar nañu dem retraite ni ko Sam daan waxee à la te boo matul seen euh, retraité du jot ci wàllu politique lii moom moo tax xëy na euh, ma jàpp ni li fi amoon ci politique maanaam politique boo xam ni da ngay ànd heure bu la neexee wor heure bu la neexee dellusiwaat loolu man dama gëm ni y a une génération boo xam dafa jóg ni loolu il faut que mu dàkk moo tax Khalifa Ababacar Sall kero euh, bi mu ko gisee seetaan ko RFI euh, ñu koy interviewé ak ni mu meloon ak Ousmane Sonko ak ni ñu amee woon euh, benn benn benn benn kii bi keroog mu toog tudd turu Ousmane Sonko rek jafe ko wala jaar ci Euh, néew ma ni xëy na bëgg ko tudd wala dara mais en tout cas ba wax na fa ba gisee na naa ko ba ni mu daanele jaarul ci turu ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko mais dama ni mais c'est pas possible dama ni mais lii mënta nekk mais Khalifa Ababacar Sall pour man ak lu mënti xew mais grandeur tudd turu Ousmane Sonko rek te euh, milité na ni en tout cas des élections inclusive mais loolu kay c'est simple kay nga ni y compris Ousmane Sonko na bokk ci élection euh, présidentielle yi nga xam ne moom la ñuy moom la moom la ñuy tànn parce que nag fii nii ak lu ñu mënti wax réew mi pour que dal am ci ñu am Sénégal boo xam ni jàmm da ciy am yàlla xam na ni c'est bien beau baax na trop président de la République Macky Sall renoncer à sa troisième candidature mais ku ne xam na ni tey candidature ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko. bu fekkente ni dañu dem ci élection yoo xamante ne nekku ci du ma ni jàmm du am de mais euh, boo moytuwul lay tax jàmm am man na jafe trop trop moo tax ma ni mbir yi <coughs> góom soo bëggee mu wér doo ko raay raayal da nga koy xolli ba mu set wecc nga bomb ko mu set wecc nga def ci alcool su ko defee mu soogay mën a wér lii moom mooy dëgg gis nga président Macky Sall puisque léegi bokkul mais léegi mi affaire yi sax foofu la war a gën a mën a neexe tey xolal candidat yëpp képp koo xam ne war nga mën a bokk pour man dafa la war a bàyyi nga bokk moom mu arbitrer maanaam nekk arbitre bu neutre des élections transparentes mais attention attention lu tax attention mooy euh, gis nañu fi mu ne nii révision électorale fi ne nii war nañu ci jëm parce que boo xoolee dialogue bi euh, bi ñu ci jógee ñoom euh, def nañu ay poñ yoo xamante ni si ni en tout cas war nañu ci jëm